mais dafa am loo bu ko ne defé dina jaadu bu bu melni amé mu askan wi commune Joal waxtaan ak ñom vraiment bu grâce à madame Sibi Assou Kolo wala Assou Sophie Gladi ma nañu trop parce que Joal soxla na bés yu melni may ñaax rek xalé yi nga sport sport surtout làmb du caaxaan boo ci buggee yegg fenn fii dafa am sacrifice mu laaj ngeen góorgóorlu ndax ñu amaat yeneen Yékini madame le ministre Joal a ni nii Fadiouth a ngi nii ñu ngi lay déglu gis nañu li nga jot a réaliser booba ba léegi élection présidentielle mu rafet bëgg nañu nga wax ak ñoom ñaari baat jërë jëf ma jox la kàddu gi. jërëjëf euh, Yaxya jërëjëf Malick Thiandoum population Joal Fadiouth ak Ngazobil xam naa ne commune Joal Fadiouth la ñuy wax mais man dama si faral di bokk toujours boole toujours Ngazobil gërëm ak sant suñu santee yàlla ba pare sant suñu waajur damay sant son excellence du président de la république monsieur Macky Sall comme ni ko ya waxee léegi ki nga xam ne moom la sénégalais yi wóolu bëgg ko joxaat ko pour mu diriger réew mi si juróomi at di ko ndokkeel tamit si bés bi tey ndaxte 123 inscrits pour voter benn loi te yaakaar naa ne ñu wax yëpp dañu ne waaw bëgg nañ ko ndaxte xam nañ la mu bëgg moo di mu bar mu gaaw mooy li ñu naan si anglais fast track mu laajte engagement laajte sérieux comme ni ko Yékini waxee képp ku nekk fa nga nekk war nga amal njëriñ Sénégal moo tax ba mu ñëwee ba jàppale ma ndaxte yàgg naa di politique fii Joal Fadiouth xam naa ne dina jaaxal lu bari ñu naan lu tax muy sargal Yaxya Yékini te sargalul keneen waaye nit su taxawee jàppale la taxaw si dugg Sénégal yëpp ne yow a sa patron mooma ah lii moom a war mooy di delloo ko njukkal loolu moo andi bés bii tey moo ko siy gërëm di ko sant di gërëm population Joal Fadiouth yëpp ndaxte maa ngi fi soog a ñëwaat tey si li nga xam ne may nañu ko le président tabat ma boole ma si ministre yi ndax su doon ñoom seen engagement seen détermination ba si vote yi tey résultat yi ñu am am 87 à Fadiout am 69 pour à Joal suñu boolee ñaan ñi gàcce ngaa làmb Joal foog naa duñu si parti bi liggéey ak li am solo mooy

Matar Ba bi fi jógee tey nee na dina si waxtaan ak moom te su soobee yàlla à part stade bi nga xam ne waxoon na ni ko defar arène bi dina si dugal loxo ak ñeneen ñi tam bëgg ñu jàppale ba su soobee yàlla dinañ fi am arène boo xam ne ah dootul soxla ñeen di dem ndakaaru dootul soxla lu dul yéen a fiy yore seen arène di ko luwee ñeneen ñi di fi ñëw ñu koy jëriñoo basket bi tamit xam naa ne dinañ si dugal suñu loxo ak football bi nga xam ne déjà mi ngi fi. mais basket bi nga xamné tay de plus en plus à niveau international mom la nit ñi di def yaakaar naa ne doomu Joal Fadiouth dinañ ci gis seen bopp commencé nañ ko ndax té sank rek sen président mi ngi fi woon warul gudd ndaxte guddi na tekki mi parégul may gëreum nak sama xarit fi ñëw tay yépp ñima gungé ah di si béral nuyo maître yi mi nga xamné ne nekkoon na fi sank maître mat euh, maanaam maître wa maître ministre lay tamit Matar Ba ministre des sports ah le maire Karim Sène ak yeneen maire yëpp nga xam ne tey dañuy yendox ñu muy maire Sadji di nuyu tamit maire dëkk bi nga xam ne tey ñëw na ma ak accueillir fii moom ak préfet maa ngi koy gërëm di leen sant di gërëm population Joal Fadiouth gërëm délégation yu jóge si département bi yëpp ndax kenn desul gërëm communauté catholique bi jógee Dakar ak bi nga xam ne moo jógee mbuur di gërëm sama famille di sant yi tamit sama waajur yi nga xam ne ak sama mbokk yi nga xam ne ñoo ma jàppale ba ma yegg si ba fii di ñaanali tamit vraiment jàmm rek lalu Sénégal xale yi nga xam ne dañuy jël gaal yi nañ ko bàyyi gëm seen bopp takku xam ne la ñuy uti si bitim réew mi ngi fii mën nañ ko am te kenn du defar suñu réew lu dul ñun nañ ko gëm te defar ko jërë leen jëf jërë leen jëf càndu